fawqa rijaal ci dun bi dem naa duy géntu duy nax ñi meesu ko wax maa dégg ñuy wax waay sëriñ saaliw dem naa dem de doon jaas madinaam sans waaye dem du jaas maa fi Mame Diarra Diané damaa ñëwoon pour dem Xelkom waaw euh, damaa yëg lu sori ci man wax dëgg yàlla Xelkom daaw laa fa commencé dem mais dama fa yëg loo xamante ni nii dama ñaan sëñ Saaliwu kom bu ñëwati ma teewee ko sama rakk yaa ngi nii mën nañ maa seede démb wéru ma woon sax pour dem wallaahi lazim tey bi ma xëyee laakin laa ni Xelkom moom du taxaw man may toog donte damay raam di dem sax dinaa dem billaay maa ngi yëg loo xamante ni nii moom ci Serigne Saliou yàlla rek laa koy seedeel. Mhm. ndaw ñi li ma leen di wax di dama leen di soññu rek ndax gis naa bëgg gi ñu bëgg sëriñ Saliou ba yemale wuñ kaak dara dama leen di soññu pour ñu gën a jàpp te xam ni sëriñ Saliou sëriñ Saliou amatul daa man mënu maa wax Serigne Saliou su dee wax sama xol day fees comprendre loolu moo tax mënu maa wax lu bari ci Serigne Saliou. ñooñu moom wax dëgg yàlla balaa ñoo dem xelkom di fa def leneen euh, ñu toog daanaka ndax euh, xelkom boo fa demee liggéey moo la fa yóbbu dangaa war a am pas-pas boobu xam ne boo demee Serigne Saliou moo la fa yóbbu dégg nga boo demee dangaa pas-pas bi la yóbbu moom nga war a wane boo yeggee liggéey bu baax aha liggéey te xam ne liggéey moo la fa moo la fa yóbbu waaw. Moussa Mbaye lan koy wax. di waa daara ndaw LDBN ga ànd liggéeyal borom Xelkom ñu ñoo taxawal daayira ndawi Sëñ Saliou ci ci diiru mois juin 2020 hmm. bi mooy nag suñ première édition bu nu war a ànd ak waa waa waa kër Sëñ Saliou bi mooy suñ première édition waaye yëg-yëg bi ñu ci am mooy sant Serigne Sall rek mooy la Serigne Sall waxoon ni jox leen ma ndaw ñi ma def si ñoom la Serigne a defoon ci mag ña loolu rek lañ ci yëg moo tax dañuy xam ni suñ jàmbaar ji jugu fi loolu rek lañ yëg am nañ yëg-yëg bu fort boo xam ne ni xel kom ba daan am ñu daan ànd ak Serigne Sall moom rek moom lañ yëgaat tey hmm. ndaw yi xam ne nii am nañ yéene dem loolu moom dañ si sosañawaat bu baax a baax ñu jàppaat si wàllum euh, euh, transport bi ndax tey gis na ni mu demee nii xëy na wàllum transport bi moo tax mais loolu dañ cee war a waxtaanaat bu baax a baax ci kilifa yi bu ko defee ñu ñu mën a jàppale ndax ndaw ñu bëgg noo liggéey Serigne Saliou lool bëgg nañ ko lool lool waaw am na ñoo xam ne gratuit la waaye bu fekkee ñun ñi daayira bi ñoom ñoom danoo jëjël seen a ah, yi bopp ngir dem waaye waaw même sax bu suñu ordre feesu sax mën nanoo yóbbaale ñun moom liggéey sëriñ bi rek moo ñu tax a jug loolu rek moo xanaa di leen gën a soñaat bu baax ñu gën a jàppal liggéey bi te xam ni liggéey si sëriñ sëriñ saa yombul ndax euh, maanaam ñaanam nga ñaanul rek moom moo ñu ñëwaat tey kon nan gën a góorgóorluwaat baax euh, xëy na nag bu bari nan ñu naan saalihaat ak ak ak ak saaliw loolu tamit dañ ko war a xàmmee bu baax waaye li li li li dëgg-dëgg mbir mi mooy ñu jubal leeral te xam ne liggéey bi du mas a yomb nan gën a sa nan gën a santaat si seen bi nag moom mi mi ngi si xeexeetal bu baax ndax daanaka amuñu sax lu tolloog 40 ans wala wala wala 30 ans kon di taxawal lu mel nii kon yéen ñi ngi leen si sant bu baax yéen waa yéen waa seen 24actu ak seen liggéey bu rafet di soñaat bu baax rek ñu gën a jàppaat ci liggéey bi te xam ni rek defaluñ ko kenn suñu bopp lañ koy defar te ñaana suñu jàmbaaje suñu borom doole ay xéewalam barke borom Tuubaa waaw lépp nag pare nañ ko lépp lu waat si matukaay pare nañ ko ndax xam nañ fi ci jamono toll loolu lépp pare nañ ko ngir ngir ànd ak daayira bi incha allah jërëjëf ñii lay jaajëfal bu baax a baax ñun waa Xelkom man man man maay soxna Fana général ub Serigne Saliou bokk ci daayiru soxna Fat Jaxate sëñ Seex jox nu kërug sëñ Saliou gu nu du ko buub alxames ju nekk ànd ko mbokki taalibe yi ku ngeen gis fii mu sol vert rek ci daayira soxna Fat Jaxate la bokk alaaji bu sa malaaka di sunu jëwrin nu ànd kook soxna aji lamp Diagne fas yéene nag di liggéeyal Serigne Saliou dund ci Serigne Saliou dee ci Serigne Saliou dekk ci Serigne Saliou loolu rek la ñuy wër. ndongali alaaji ñang Baye Fall. delloo njëkkal ku tedd rek Serigne Saliou ànd liggéeyal borom xel koom fas yéene dem donc daara bi liggéeyal ko fa te jëmmi yàlla ji rek tax ak jëmmi Serigne Saliou loolu rek moo ñu dajale fii. waa départ bi moom fi ne am na jafe-jafe ci ñi nga xam ne ñoo jiite mbooloo mi ndax euh, waruwaay yi nga xam ne yàlla dogal moom lañ xayma woon pour mbooloo mi bi ñu ñëwee da mbooloo mi daa xaw a takk ba weesu mm, waruwaay yooyu loolu mooy jafe-jafe bi waaye nag ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax ndax sëriñ bi nga xam ne moo ñu yéen yéen moo ngi koy oyofal oyof bu toll ni ñoo ngi ci am yaakaar ne fi mu toll lépp dina jàpp incha allah. waaw waaw donc yi donc tarbe yi fi ne ñoo jiite liggéey bi. waaw waaw fi mu léegi mu takku de incha allah waaw léegi waaw xayma bi ne moom wax dëgg yàlla mënu koo takk waaye fi ne bi ñu ko dalee yor fi mu toll léegi mu diire waaye ñun nag moom suñu jëwrin diñ ci àndal ñu koy wax sëriñ Alaaji bu sa malaaka jaamu sëriñ Saliou ñoo ngi koy ñaanal yàlla sa borom mu yàggal ko fi lool tam ànd ak wér ci barkeb sëriñ Saliou suñu mbokku taalibe bi mi ngi nga xam ne moom lañ taxoon ni nag ñu koy wax sëriñ Saliou Nguer moom ci dong tarbiya la bokkoon ci kër gi la euh, jàngee alxuraan fi la wàcce ba yor daare alxuraan mu tey moom ci la bokk moom. lan la noo waaw waaw fi ne li leen di dénk mooy bu nu fa demee ab xoole akub seetaan yóbbu leen fa la leen fa yóbbu mooy képp koo xam ne yàlla suñ borom dogal na yaa ngay dem na nga yóbbaale ab radu mbaa nga yóbbaale parla mbaa nga yóbbaale yeneen yoo xam ne ay jumtukaay yu liggéey la waaye dem fa di seetaan. mbaa nga dem fa di fo loolu yóbbuwuñu fa ab liggéey rek moo ñu fa yóbbu ku fa dem daal toog di xoole moom bu ko nag heure boo xëyee na nga nekk ci waaru di liggéey bu wàcc jotee nga wàcc te bañ faa soxla yëfi kenn waaw bañ faa soxla yëfi kenn bañ faa jël yëfi jàmbur te dem liggéey tax laa jóg nga dem liggéeyal Serigne Saliou ndax am na ñu fay dem defaroo fa waaye am na ñu fay dem yàqoo fa ndax barab boobu képp ku fa dem loo fa ñaan yàlla def ñi ko xam na xam nañ waaye ñi ko xamul xamuñu ko ñi xam barab ba buñ demee lan fay di seen yitt yëpp chaque jour ñu koy gën di gis waaye da gis ña fa xam ban fa dalee dem ba léegi mënuñoo avancé mètre la leen fay yóbbu nag mooy ak taxawaalu ak ak sàggante mooy waral dem gi taxawaalu googu rek lañ ci am. Mhm. fédération. non daayira bi fédération la. daayira bi daayira bi takku na fédération la fi mu nekk gox yi fasantikoo la ndax waa Ndakaaru ñoo ngi ci am na ñoo xam ne ñoo ngi ci bitim réew ah, waaw am na ñoo xamante ni ñoo ngi mbuur gi ñi nekk ay Soal Fadiouth ñi nekk ay Jifir ak yeneen gox yi fasanti ko waaye ñu ci ëpp solo nag ñoo ngi ci biir Touba Mbacké gi waaw muy daayira ndaw yi Serigne Saliou ànd liggéeyal borom Xelkom ñu nga xam ne ren moo nekk seen première édition ñu bëgg a def 28 décembre ñu bëgg koo màggal fii ci barab bi ànd koog waa daayira soxna Faat Jaxate nag nga xam ne ñoom ñooy seen jëwriñ ci biir liggéey bi ñu bootu ci seen biir àndandoo di liggéeyal Serigne Saliou waa kàddu gu mujj gi moom mooy dollee santaat Serigne Saliou ci fekk gin ko fekkee daaw fekk ko daaw jëkk fekkewaat ko ren te am pas-pasub dem liggéeyal borom xel koom dem ci jàmm dikkaat ci jàmm ak salaam xale yu góor yi nga xam ne ñoo fi ne ñun mag ñi dañoo fas yéene di liggéeyal sëriñ Saliou dund ci sëriñ saaliwu dee ci sëriñ Saliou dekkee ëllëg ci sëriñ Saliou am nañ leen ba pare ñooy seeni waajur waaye dañuy ñaan gone yu góor yi nu toog ci réew mi bañ a dem fenn gaal yi nan ko moytu géej gi nan ko moytu danoo bëgg seen yaay yi jaruñu ci ñoom danoo bëgg yi tamit ñu des ci dëkk bi bu ñu wootee xel xelkoom ñoom gone yi ñoo am kattan ñu dem liggéeyali Serigne Saliou bu ndaw yi desee ci géej gi mag ñi duñ mën a liggéeyal Serigne Saliou na ndaw ñi toog liggéeyal Serigne Saliou ànd ak seen waajur yii di takk ci jànq ji ndax bu ñu takkul jànq ji jànq ji duñ sëy te bu ñu sëyut duñ am turandooy sëñ Saliou duñ am turandooy sëñ Bamba nan toog lu nu am ñu jël ko ah parents yi moom dama leen di toujours dama leen di def lancer message parents yi kenn koo xam ne nii yaa ngi yëkkati sam natt di ko jox sa doom mbaa nga di ko jox lenn muy dem ci géej gi bu sa doom dee yaa rey bu sa doom dee yaako rey na góor ñi na gone yu góor yi toog takk ci jànq ji maire yii di leen jox li nu am nuy dund ñuy dund bu xel koom jotee ñu futti futtiku dem liggéeyal Serigne Saliou ñoo am kàttanuk liggéey nun moom dañuy toggi dong ñu ñuy lekk waaye amuñu kàttanuk tool ñoom ñii ñoo am kàttanuk tool toog leen ci dëkk bi